Ndanane TV Ndanane Ndanane yu leer émission yu leer plateau yu naaj KNTV. monsieur Lo ñu jóge ci déclaration président de la république mu ne lu def euh, lu nekk candidat à l' élection présidentielle de 2024 yow ban jàngat nga. ngay def ci déclaration boobu ñu bari nee nañ euh, il est sorti par la grande porte. bon déclaration bu mel noonu moom xam naa ne bari nañu ko xaarul woon. Mm-hmm. mais dama ne mënu woon a def déclaration bu weesu bi ba pare euh, am ci ndam. Mm-hmm. lu mel nii rek la mënoon a def. Mm-hmm. Sénégal yëpp ànd dal. àdduna yëpp gën a siggil Sénégal. kon nag lépp loo xam ne da ko doon nar. ba ñëpp xam ne yaa ngi koy nar. ña ngay àndal di la euh, soññ saabu jot naan laan defal defal defal mm-hmm. nga jékki-jékki bàyyi ñëpp ne la waaw góor jàmbaar nga kon xam nga ne bàyyi baa gënoon def ba mm-hmm. kon nag ñoo ngi kay encourage ci mu continuer ci noonu mm-hmm. xam ne réew moom kenn moomu ko bàyyi kenn nit bàyyul Sénégal maanaam réew mi dañ koy nation la bu ñu fonde depuis des années nekk kon képp koo xamante ni suñu borom dogal na nga jékki-jékki ba jiite réew mi mhm. xam ne na mu ne woon ci loxo mhm. ba jóge ci ñëw ci yow noonu la war a jóge ci yow dem ci keneen loo xamante nii dañ ko ciy félicité ñun ñuy félicité mooy le peuple sénégalais mhm. bi nga xamante ni dañoo taxaw am responsabilité xam lan mooy constitution lan mooy dooleem constitution Sénégal depuis 2001 lañ ci def ne amul kenn koo xamante ni war nga am ñaari mandat consécutif euh, en 2016 référendum boobu la mu doon wax ci durée bi la woon. Hmm. kon laal ñu benn yoon le nombre de mandats bu ñëwee dem ba ca biir xelam dem ci xëy na lànga gi neex na nguur gi neex na mu am yéene continuer peuple sénégalais taxaw wan ka ne ñun amuñu benn yoon boo xamante ni dinañu la bàyyi pour nga doxal sa sa projet bu am fi troisième mandat mu dem ba xam ne lii kat wóoratul ci ma def ko mu dellu ci gannaaw. ah kon nag dañ koy wax rek ne ko jàmbaar ngeen xam man tey jii su ma àndoon ak sama morom ñuy dox ci mbedd ba mu yàgg mu nar a def dara. ma di ko wax bàyyil bàyyil. lu ñaaw. ma ko naan bàyyil bàyyil ba mu jékki-jékki ne bàyyi naa. dama ko ciy gërëm sant ko ne ko waa kañ bàyyi. teewul nag ne bu ko defoon dina ñaaw. kon nag alhamdulilah ba mu ko bàyyi. <laughs> donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax si tontu boobu ñu gis tamit que Ousmane Sonko defa ne. moom su bokkul élection moom loolu fan la ko teg te tey Ousmane Sonko mu dem procès ak Adji Sarr ñu condamné ko deux ans donc loolu yéen fan ngeen ko teg yéen waa Pastef waaw xam nga le président Ousmane Sonko. te gis nañ aussi antérieurement ku si mel ni Khalifa Sall ak Karim Wade élection 2019 loolu moo leen daloon te bokkuñu. waaw xam nga sa kër sax. Hmm. da ngay am sa njaboot. te duñu hmm. doon benn. Hmm. Ousmane Sonko yàgg na wax ne moom. boppam peuple sénégalais la ko dénk. te képp ku am seetlu am xalaat xam nga ne Sénégal dañu instrumentaliser la justice instrumentaliser les institutions di ko def un combat politique envers des adversaires moom mu leer ko ne tey jii Sénégal ñaari yëngu moo fi am entre deux mille dix ak léegi. Mhm. yu doy waar te yëngu yëpp li ko waral mooy saa ñi nu jàkkaar lool teg ay pas jëm ci éliminer ko peuple bi jóg taxaw dressé wu ne du fi amee parce que y projet bu ja bu ñu jaay Sénégalais yi. Hmm. bu Ousmane Sonko ak le projet Pastef parce que Pastef Ousmane Sonko moomu ko ah. Hmm. c'est des cadres ñu bëri ñoo ci daje ay mag ay ndaw ay xale jaaykat bi ci buntu ki jaay gerteem. Hmm. baykat bi menuisier bi chauffeur bi mécanicien bi cadre bi ñëpp képp koo munti gis ñoom ñoo bokk projet boobu parce que dañu gis loo xam te ne dafa doon am depuis les années 60 mu mel ni nguur gi ñi fi ne ay buur lañ mais duñu yoruñu république mais royaume lañu yor maanaam ñi nguuru dañuy nekk ci seen balaxal ma daal di noos di jëriñoo alalu askan wi kenn du wax ku wax ñu ne la noppil mm. ku wax ñu duma ku wax ñu dóor richesse bi ñuy wax ci réew mi di dem ci benn parti askan bi ñëpp duñ ko bokk atte yi di gëlla maanaam ñii dañ leen di atte ci yoon na mu waree ñii ñu di leen di atte ca àndoog man hmm. sénégalais yi dem ba ne lii daf fee war a jeex mais Alassane hmm. Hmm. waaw Ndeye Fall foofu laa bëggoon ñëw yow lan nga xalaat ci moom li mu wax Aïda Fall man. man ah, man non di ko tontu. mais saa yu wala ko mu àggale après yow nga ñëw allez-y. bu demee ba ne. waaw pourquoi pourquoi tey jii dama loolu noonu fan la ko teg. fam ko teg mooy. xam ne sénégalais yi. Uh-huh. duñu seetaan. Uh-huh. benn nit ñu dénkale réew ba nga war a dem. Uh-huh. nga ne may tànn kan moo may remplacer. ndax lan yaa ngi ragal boo fi jógee ña nga jëloon jox leen doole. jox leen alal réew mi ñu ci def lu leen neex. Hmm. yaa ngi ragal keneen koo xam te ni bu ñëwee xëy na di leen woowaat ci table ji ne leen kaay ñu xool ni ngeen yore woon réew mi alalu askan bi ngeen jëloon nañ leen ko delluwaat ci alal ci ci askan bi hmm. sa njaboot ji nga àndaloon ñuy def lu leen neex dinañ leen woon ne leen kaay leen yoon kat tey mu tëddee jaaxaanaay ku ci nañu àttale nañ la war a àttee hmm. xëy na loolu ngay ragal ba ne xaaral moom koo xamante ni kat su ñëwee man moom ñoo bokk gis-gis man ak moom ñoo bokkoon business bi ci suuf dina ma mën a nëbbal samay góom ba kenn du ko gis loolu nga bëgg moo tax nga bëgg tànn ku la remplace. Mm. kon yow askanu Sénégal du seetaan loolu. Mm. des fois loo xalaat ci loolu ci discours président ak par exemple tey li Ousmane Sonko wax est-ce na fu ko teg. man dama jàpp ni est que. non tey Sénégal tey Karim mu ngi fii Khalifa mu ngi fii keneen ak keneen Ousmane Sonko mu ngi fii. non Assane man xam nga du ma nekk fii di wax ay lu Ousmane Sonko wax. Mm-hmm. ak ay lu Macky Sall wax. Mm-hmm. te ki ma feggool ni ma dégg li ma wax ma war koo mën a tontu. Mm-hmm. du tontu sax au fait mais moom dafa dafa wax ci biir waxam mu ni président Macky Sall dafa naroon maanaam dafa doon nar tegaat beneen mandat beneen mandat mu échec mhm. ñaar mu wax fi ne justice boo xam ne nii dañ koo instrumentaliser mhm. ñaar mu waxaat fi encore aussi que ni sénégalais yi ci boppam mhm. ñoom ñoo jëloon euh, président Macky maanaam su ma ko sous-entendre ñoom ñoo jëloon président Macky Sall jox ko mandat. Mm-hmm. léegi moom moo waxaat que ni encore que ni sénégalais yi si boppam. Mm-hmm. ñoom euh, Ousmane Sonko dafa mm-hmm. dénk sénégalais yi boppam. man ma bëggoon xam. Euh, ban droit la Ousmane Sonko am. boo xam ne Macky Sall amu ko ba war a mën a jël dénk askanu Sénégal boppam te sa même droit. président Macky Sall moom mu nu ko am. te ñu xam ne Sénégal euh, moom ba mu ñëwee mu wax Sénégal émergent. tey émergence boobu noonu. loo bañ bañ bañ bañ Macky Sall. Mhm. gis nga ko fi. Mhm. moo ngi Sénégal maintenant le problème en est que ki nga xam ne dafa tëdd këram jógul dem liggéey ji. Mhm. toog ne day xaar émergence boobu fekk si ko. ñu indilaat ñu yeneen yeneen forme de personne. yeneen façon nit yoo xam ne nii dañuy ñëw di nekk ay révolutionnaire nga wax ne peuple bi du du du nekk peuple boo xam ne nii. Euh, dañu fiy teg rek koo xam ne day ñëw di buur ak di bummi lancé bi ngeen jël yéen en tant que cadre Pastef en tant que seen président Ousmane Sonko ñun ñëpp Sénégal bokk nañ gis ne yéen ci mouvance boobu ngeen nekk mooy mooy installer la chaos et l'anarchie yow tey su ma la déggee nga raisonné noonu noonu noonu man man côté boobu da mais léegi daf may kii tuuti les partis lan ngay tontu tey ñi nga xamante ne dañu parce que am na ñu ne tey le discours du président c'est un discours hautement salutaire mais à côté dafa am ñu ne tey président Macky Sall bu demee ba wax ne du def troisième mandat c'est parce que gis nañ peuple bi tam gis nañ manifestation yi fi am loolu moo tax tey mu taxaw dellu ginnaaw. dafa dellu ginnaaw man le président Macky Sall ne damay def troisième mandat. xam nga depuis depuis depuis depuis euh, ñu commencé di ko wax ay troisième mandat ni xanaa xamoo ne ñoom en tant qu'opposant mm. ñoom ñu ñu ñu ñoo plaidé troisième mandat boobu noonu parce que ki nga xam ne nii dafa ñëwoon taxaw moo wax mu ne ni ne peut faire deux mandats consécutifs mhm. mu ñëw taxaw wax loolu noonu demagul si mandat bi fin mhm. mandat am jotagul mhm. nekkagul sax si si milieu bi gars yi commencé di wax di wax di wax di wax di wax jël ko jox ko mandat bi par force man je ma dis que grandeur la am bu fekkente ne moom refusé na ne ne du def mandat grandeur la am mais ñoom ñii ñoo validé woon mandat boobu ah <laughs> waaw ñoom ñoo toog devant les caméras. Mm. ñu valider mandat boobu ñoom ñu ne. Mm. président Macky président Abdoulaye wadd mm. moment bi ñu ko fi jëlee naan góor gi doy góor gi doy na xaw ma lan góor gi dee na suul nañ ko xaw ma nangam. ñu ne moment boobu noonu. moom amoon na droit defoon mandat. mais ñoom ñoo taxawoon yuuxu comme ni ñu yuuxoo woon nii. parce góor gi dem reculer. deful mandat. parce que loolu man dégg naa Barthélémy Dias wax ko. dégg ah Ousmane non Ousmane Sonko man dégg naa ko ni nga déggee Barth man noonu laa déggee Ousmane Sonko mu taxaw wax ko. Mm. mu valider mandat boobu noonu. maintenant qu'est-ce qui a changé si diggante bi noonu ba tax ku taxaw taxaw wax ne nangam nangam.